Itileer bu dóor dóoraat. xale bu xale bu yore la. waaw bu mën a bëre waaye waaye daa am benn grand xam ne nii. waaw day sàcc rek sàcc la. war na koo ba. non wax naa ko nee naa ko yow booy booy bu yaru nga mais booy ànd grand bi léegi nga commencé ceeli. Ah, di di maa la wax loolu. loxo ji ponte warul kenn. waaye xale bi beneen daanaan la moom Gorofil. waaw Gorofil waaye Gorofil li ko def mbëri journaliste. naka tey mbokk mu ah. maa la wax lool moo tax combat bi combat bu doy waar la gën a leen jóge ay victoire yu am solo. a ah, en tout cas mbërën daan lay bërën. ñaari non kay bërëkat la ñaari bërëkat la waaye Itilaire topp naa ko ci mbabadi de. Eh, eh. boo xoolee mbooloo mi mu andi ak ni ko waa Parcelles toppee 1 ba 26 nga xam ne xale bi naan la. mos naa bëreeg Zilo mbabat mu rëy. ndeysaan. vainqueur de vainqueur de Boy Niang moom Zilo. mel ni moom combat am mel ni mu topp dégol rek. maa du bàyyi fii ak amul ndam. waaw waaw bilaay walaay iti leer ak gorofil waaye mbokki téer yi tekki leen ma gorofil gorofil a tentre boobu iti leer a takk lu rouge waaye iti bu takkee lu rouge moom mel na ni nuru la wax loolu nee na nekkul titulaire léegi titulaire la titulaire moom day départ. ah titulaire. voilà xam nga dafa am ay remplaçant. wax nga am ñoo xam ne ay titulaire. Ah, ah. moom nee na moom du toog ma day ah, titulaire. oh titulaire bu yokkee titulaire dana doy waar. maa la wax loolu. door dooraat la ne titulaire. ndeysaan kii ko andi Cheikh euh, Cheikh Tidiane Niang moo ko andi. ah door dooraat la di. maa loolu. loolu kenn waxatu ko. mais Boy Faye ñu ngi koy encouragé di ko wax làmb waaw c'est la vie. daan na daan na di ko daa fayu rek. Mhm. itilaire ak gorofil. waaye yow man li ma jaaxal itilaire mii. itilaire mii téer laa ko tegoon. téer waa nag wax kon bu dee bëre gorofil moom. kii sama camion la. Ah. gorofil sama camion la. Ah. kii téer la mais est-ce que xam nga ne ku maîtriser euh, gorofil la. ah moo ma jaaxal loola tax tay ma xam ndax da koy taal dawal wala nu mu demee noonu arbitre ba ngay xool ci titulaire ak Gorofil waaye maa ngi nuyu Baye Sidi sa caméra ba Africa Press ah. kenn ñoom ci mim réew ca info réew woon eh, bërki taati démb la Gorofil ak itilaire téyër bi ndax day deg machine awal ombal urleel sirfile wala day ñaw sabadoor mbaa demi saison itilaire door na ko kuubu dal laa ilaha illallah Gorofil moytul loolu coup bulldozer lañ la dóor Hitler a ngi koy koj Gora Fine changé na tànk jot naa jegeel Hitler kanamam ibbi na xeex bi ci Hitler Gora Fine su ma sañoon day jiital pied gauche Hitler bàyyi lambataaka bi bu fekkee dana la dóor mu daanu bu ko def sa xel boo ko gàddoo doo am garde te titi eh, Gora Fine ni mu ubbee garde bi war nga koo mën a dóor jàppante nañu jàppante nañu mbapati nañu kuy avantage wu ndax téer bi day taal machine bi ñaw ci demi saison o oh, batalaw laa ilaha illallah daan na ko itilaire titilaire burofil daan na téer ba mu ngi noonu iti jógal danga nga daan daan muy neex ana ñi ànd ak moom gorofil kaay waaye goro kaay nii moo yow mi may naa ko journaliste yi Victoire may naa ko journaliste journaliste yëpp laa ko may ak amateur ak supporter yi maa ngi bëgg bu baax a baax nga tuddee sa bopp Gorofil di bëre téer def ko nii teer bi ñu xalaat mu taaloon ñaw demi saison waaye mayoo ko ko waaw nii la mënoon demee damaa juumoon fii laa jógee woon juum amul luñ ma waxul mais mën naa mbëri journaliste sant yàlla bu baax damaa liggéey damaa liggéey combat bari siñ fo man ñaari pied la dama ko nax si tànk bi mo man xaaral ma indi ko bi man mbër ñaari pire la moo tax mais maa ngi bëggee ni journaliste en plus it bëggee naa la. non ndox du bàyyi yoonam dafa am lu ma mënee dafa ko bàyyi yoon ma delluwaat si tey moo waral suñu borom may man dam mais da ngaa jiital mooy pied gauche ñu ne gros fil fa la mënee nga changé gauche teg droite man mbër ñaari pire la ñaari pire laay bëre bu ma neexee bëre bu ma neexee tëj bëre bi sëñ Fallou ma yàlla ku yàlla yeneen combat laa laa xaar wala avant dafa mbër laa ko jos moo ko indi jos laa soxla ndax zosoo ko indi jos zosoo indi ah. waaw nañu wala tafa dafa mbër laay xaar buñ ko daane ma daan ah. bar sëñ maa ngi bëggee journaliste yi baax bëggee nan nangu nañu victoire bi moo ñu a un problème qui se biir néegu xam carton euh, bu wala ou un wala euh, sax jafé jafé euh, gawa danou a gam dafa pour saafara leen bepp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci sen néegu bëgg gam 77 490 09 20 ak sen gam yi sey dafa jex tak ci même